ñep di sant yalla di julli ci yonent bi di ñaanal nak euh, wa senegal ñu am jamm parce que jamm mom moy tax ñu def activité sportive jamm mom moy tax ñu mëna dund te kenn du am lula la jaaxal bi nga xamantene président de la république son excellence Macky Sall jël na ndogal ne demb journée day nationale la won pour ñu ñaanal ñi nga xamantene ne dañu loru genn aduna ci yëngatu yi fi amoon ci fan yi ñuy ñaan yàlla bu loolu amati ñu jiital Sénégal te bañ jiital intérêt personnel su ko defee ñun ñëpp dinañ mën a ànd joxante la ko liggéey pour njëriñu Sénégal waaye waxtu bi loolu di am am na suñu mbokk yoo xamante ne ay dirigeants sportifs lañ yàlla jël leen mën nañ ci jël ku tudd Mamadou Diallo waaye mën nañ jëli ku ràññeeku muy président Sport Boule Gazan Ezidine ñu tudd gon ko xam ci gaz yàlla jël ko ñu koy ñaanal yàlla yàlla xare ko añan na xare ko ñëpp ñi nga ne nañu aduna ñi gañu yalla eh, wëral leen kilifa réew jël décision ñu alléger li nga mom moy couvre-feu bi ñu jëm le 20 le 19 à minuit muy jéxal li ñu état d'urgence wala état de catastrophe bi nga fait une mo fi am loolu bu Nous yeneeni dafa am une bi am dinañu ba nga xamante ne nit ñi dinañu mën a dellu nag seetaan yi li nga xamante mooy jongante yi wàllu tàggat yaram loolu bu ñu ko waxee làmb ji dina ci gis boppam mais yeneen discipline yi dinañ ci gis seen bopp waaye li ñuy ñaan kilifa yi ñi nga xamante ne ay kilifa lañ te ñu jiitee tàggat yaram ci réew mi comité olympique ak fédération yi dinañu gën a waxtaan ba ñu xool fépp fu ay nit ñu bari di daje nu ñu baree bari it war nañoo li nga xamante observer mesure barrière Moi il faut ñuy dandante ci mètre lu mu tuuti il faut ñuy takk masque il faut ñu am li ñuy raxasee loxo di température yi loolu bu ñu ko defee defe naa dana a am leneen dana mën am ci anam yi nga xamante la daan ame te lor du ci am loolu lu ama am solo la ñu koy souligner di gërëm nag ñi nga xamante ne commencé woon nañ huis yi te di def ci anam bi ñu ko waxee woon loolu lépp nag dinañ ko gën ak le 19 su ko defee nit ñi mëna déllu ci jamm déllu ci li nga xamante moy jonganté li nga xamante nak mën nañ ko ci tek té mu am solo moom mooy euh, fii ñu jëm fii ñu jëm yolomal amna pour que nit ñi dellu ci li nga xamante moy infrastructure sportive yi nak du doon ñaax fatali lay doon parce que ñi jité sportu Sénégal man ministre des sports amna mbékté ci ñom acteurs sportifs am naa mbégte ci ñoom parce que taxawaay bi ñu wone ci jafe-jafe parce que nit balaa ngay xam tolluwaayam jafe-jafe am jafe-jafe bi mu amee kenn footballatul kenn defatul activité sportive kenn bëreetul mais kenn caalitul ñëpp taxaw nañu ànd ak réew mi ànd ak njiiti réew mi ak gouvernement xeex li nga xamante ne mooy pandémie bi ba tey jii ñuy am yaakaar parce que vaccination ñëw na te ñuy am yaakaar mu gën a wàcc loolu nag bu fekkee ne am na dafay jaadu ñu sant acteurs sportifs yi ak mouvement associatif ci seen taxawaay muy ñëpp nag waaye lamb ji aussi nga xamante ne ñoom rek a commencé gul li nga xamante ne mooy compétition ñooñu tamit dinañ leen sant parce que li métti bi muy njëkkee ñëw samedi bañ jël décision ca dimanche ba am na promoteur bu waroon tëgg te tëggul mais caalituñ dañ jël seen alal andi jël seen i matériel andi ba pare dugg ci sensibilisation tey nag bu ñu demee ba ñu xam ne war nañoo mën a delluwaat ci làmb ji arène ba peut-être duñ fa mën a def 15000 places waaye war nañ faa mën a def peut-être 8000 places loolu day nekk lu am solo moo war leen cee sant nag sant leen ci seen taxawaay mais sant leen ci seen woote pour jàmm am ci réew mi kon bëgg naa daal bés bi di ajuma ñu am ci ndam lu am solo ci taxawaayu football ci Afrique am ci lu am solo it ci li nga xamante ne mooy doxalin réew mi

boo xamante ne kon dañu war a am lecture philosophique de liy xew ci réew mi te ñu xam ne loo jëndee jàmm jàmm jàmm ko gën jàmm la ñu war a ñaan ci réew mi suñ te movement sportif bi vertu yi ñu xam ci sportif mooy jàmm nañ joxante loxo liggéey pour développer suñu sport loolu laa bëggoon a wax maa ngi leen di sant leen gërëm